Boy nekk koo xamante ne seetlu nañu euh, ñi ko dox song euh, songu yëpp dóor na leen ko d'arrêt dëpp leen gauche wala dëpp leen droite ngeen bëgg gaawal combat bi est-ce que wóor na. ah wóor na ndax euh, boo xoolee ñi boo Niang doon bëri ak Lac de Guiers bokkuñu. bokku sore yoon nañu lool fi mu nekk nii parce que boo Niang da nga koy attaqué mu daw. nga daw force ko mu yéeg mu jéem a sàcc dóor ko jéem a waaye boo taxawee bu dee ba mën ngeen fa am noor ak nawet mais yàlla man de bu soobee ak combat bi ah dina ñaan si yàlla daal yàlla si yàlla yóbbu ak jàmm rek ah nag moom ñun bëri ko combat bu ne ci noonu lu ne làmb kenn xamul koy daan yàlla moo xam mais nag am doon droit ñaan si yàlla yàlla kàttanal maa ngi ñun dam barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ne la jege euh, booy ñaan ni mu jógtee day tas day tas géejuwaay gis nañu nii Balla Gaye ñëw na sax jàpp ci euh, entrainement waa ji gën kaa yokku euh, géejuwaay yëpp nekk ci ginnaaw la jegeer géejuwaay ragal fu mu toll nii la jegeer jeexal wala non non non euh, parce que boo xoolee combat Lac de Guiers njëkk yëpp Balla Gaye dafa daan ñëw guy gi dafa daan ñëw boo xoolee seen combat ba Modou Lo bu njëkk baak combat ba Yékini nekk yëpp ñoom saa kees ñoom ñëpp ko am combat sa morom bi ñoo groupé wu ñëw parce que Lac de Guiers ak ak Balla Gaye ay mbokk lañu pur bon ñoo bokk dëkk ba ay mbokk lañu bokk benn kilifa gu leen boole woon depuis ñu ne xale ndaw ba léegi waaye loolu du see dara li am solo daal mooy combat bi le très soretul ñu ñaan ci yàlla yàlla yóbbu na jàmm incha allah bu baax daañu ci lu xew. gars yi gars yi benn dernière question gars yi nee la jege rek booy ñaa xaw nañoo niru bu kenn jëlul initiative fii la ñuy fanaan. non combat ñoo ñoom xam nga yóbbuñu yóbbuñu nit ñi yóbbuñu amateurs yi incha allah dama la combat bi daa day ñu bëre. fi nga séenoo ak nu muy dem. Uh-huh. dana bett ñu bëre. jaar nañ la. affaire yi man affaire yi man ah, tey xanaa gisoo gars yi ni ñu tey. man buñ ko jàppee koy duma jërë wax. jarul wax de bu ñu ko jàppee dañ koy duma gisoo ñun ñëpp dañoo mer xoolal gars yi ñëpp dañoo mer. mais li tax ngeen mer. duma yu métti lañ koy duma. ba mu jooy. Boy Niang dañ koy lekk bu kiy seeñu ko. yaa ngi vendre dama koy may benn affaire booy Niang yaa ngi vendre yaa yaa maamu ko simb yaa ko pees yaa ni mbata. loolu mooy loolu ci li nga laa la mooy affaire bi du wax ju bëri booy bi affaire bi day siffler ma dox ci kawam màbb ne ko kër ci xoolal. wàcce ko dóor ko ay kurfañ mu wàcce lekk tani seeñu ko barke alxuraan bukki yee koy lekk tani seeñu ko na agi ma wax ji rek mun a pees yaa ni mbata ah, fu ngeen xam fuñ ko teg ñoo ko mën ñoo ko ëpp doole ëpp ko fit ñoo ko long ñoo ko laar dañ koy duma ba mu jooy comme gone xanaa bu ma la nuyoo di la ñu gis la ci bésu sawaay la jegeer hmm? waaw c'est normal c'est normal sama rakk la oui c'est normal nga gis ma ci bés ma takk ci rëpp nin ci bat way c'est normal. booy ñaa nekk xale boo xamante ne macha allah ne dafa nekk ci yoon. mu dugg géej waaye dugaat fa dugaat fa ñu gis nii yéen dafa mel ni da ngeen yàkkamti combat bi nu mu demee noonu. waa dañ ko soxla combat bi dañ ko soxla dañoo soxla combat bi combat bi dañ ko soxla ñun dafa am fu ñu ko teg daf ñoo jaral lu ne waaw. ndax coow lu bëri ratatat ji c'est trop. c'est trop oui mais boo leen defee nii est-ce que doo leen excité Lac de Guiers. def non non non y' a pas de problème Lac de Guiers magum jëmm la lu ñu calculer Lac de magum jëmm la bis bu ne am na ko bis bi a jaaxal. non non a rien lu ñuy dox ah, vraiment vraiment vraiment woon dara ci moom. bu song jotee di ngeen ko song. waaw lu tee lu tee làmb la ñu wax làmb la wax Lac de la war a calculer ci booy ñaa Lac de Guiers bis bu ne am na ko tàkkusaan bu ne am na ko ah. tey làmb ji ma xamal la benn affaire boo Niang mooy wut si du neen mooy xale mooy su boobaa na ñëw su abi suulee na dal si kaw la dëgër ay su dal si koom laa ñaa ngi ñaangalul bu la neexee champion maa ngi siyaar waree gaynde gi bégg nañ lu bëri doole siyaar nañ wér sa copain sa xarit sa doomu ndey la jegeer de di waajal bés bu mag mën naa wax géejuwaay gépp di waajal bés bu mag alors ñu gis bés bi géejuwaay mobilisé wu mais lu ko waral. waa dañuy sant yàlla rek julli si yonent bi rek c'est que combat moo ñu toll foofu moo tax waa Guédiawaye yëpp jóg mbokk yëpp jóg xarit yëpp jóg am di jàmm yëpp jóg derrière sa waaye pour yàlla may ko ndam rek loolu dong la ko waaw. ñu gis nii ku ma ci mënta waxal ci waa géej waaye dañoo yàkkamti dafa mel ni dañoo excité wu bëgg a exploser bëgg a dem est-ce que songu Boy Niang wóor na. non loolu garaaw pour songu booy Niang nii loolu loolu amul benn problème loolu loolu moom dawul suñu yaram. Eh. yàlla nañu yàlla may ndam daal la ñuy ñaan bu bis ba lépp dina leer incha allah. ci kàttan wax ak sànq ak score su mu dara ci booy booy ñaa. mais booy ñaa moom ñu fi jaar ñoo gën a weex booy ñaa fuuf ñoo gën a tàng booy ñaa fuuf ci côté yëpp nag kon lu ñuy calculer ci booy yàlla yàlla defal ñu ndam seddu gi rek loolu dong la quoi. mais gis nañu ñu calculer booy ñaa tamit waxee ko nii gisoon nañu récemment sa doomu nday Sa aussi ñi ko calculer wul aussi sëñ bi combat bi day yomb si booy ñaa de. mooy li may wax waaj léegi ci bokk safin ñooñu ay champion lañ dëgg la mais la de Guiers ku ko xam-xam ne du asaaloo combat du maye ñeente loo tax ma ne la cin bokku safin nag ci ci kàttanu yàlla incha allah euh, le treize la lépp di leer ci kàttanu yàlla. na waajal rek lu mu mën a waajal rek loolu lañ koy wax de di ko ñaanal yàlla yàlla may ko wér rek ba bis la Lac de Guiers daan ko jëlub seet wit bu amul benn wérante ci barke Seydina Mohamed. waaw champion dégg ci yow champion yow ci biir. am na maa ngi sama rukk rek doom yaay nekk sama rukk rek di liggéey ak samay poulain rek di liggéey ak sama waa écrit di liggéey yëpp rek di xaar lu ñor rek waaw ñu sàqar mi ko ci kàttanu yàlla. mais lan mooy lu ñor gis nañu nii làmb ji pra kenn daaxuloo fi bëre mais lan moo tax yow moment bii nii mën nañoo gis sa combat. waaw loolu problème boobu noonu nag sama supporter sax loolu da leen def problème yow nii yow loolu def na la problème yow question bi sax dama la koy delloowaat ma la bu dee bëre bu dee bëre su ma bëree mu neex su ma tuusee fu ma feccee mu neex. stade dama koy feesal dell kon xaw ma lu xew xëy na kon app bee jotagul. laay wax seeroo non mosuma seer maa gën a neex ci maa gën a neex a waxal ci mbëri ci barki Seydina Ahmed. moment bii nii moment bii nii kan moo nekk sa kanam. non ñu ne sama kanam bëri nañ du ma fi nekk di cité kenn nag. ndax ma leen wax dëgg yàlla du ma leen tudd ndax toll naa làmb foo xamante ni du ma ne diw ak diw ak diw ak diw promoteur na bu xoolee combat bu jaar ba ne ma yaag diw mu raisonnable ci man rek am benn problème waaw maa pour ñëpp daal waaw maa ngi ci pour ñëpp. dégg nañ dégg nañ